salaamaaleykum amis téléspectateurs Equivox TV dal leen ak jàmm Babacar maa ngi lay siyaar Abdou maa ngi lay fay kon ni ngeen ko xamee ñu dem jëlal leen li nga xamante ni moo jot a ruus ci yenn kaay yi ak Babacar asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 15 février 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yi suñu lamb la ñuy xëy dooreeti ko yëglikaay bi di suñu làmb nag tey fa mu xëy fenn la ci xëtam mu njëkk maanaam mbër mi nga xam ne nii daal moom mooy mbërum bawal mi nga xam ne moom mooy tafaatin moom la ñu xëy tey wan ci xëtam mu njëkk mu nga yor ay laaram nag wàcc maanaam di fecc yëglikaay ba daal la mu gis ne na daal tafaa daal soo bëggee dégg dëgg ci côté entraînement fi mu nekk nii yu méttee métti ci la ne ci wàllum physique boxe ak yu mel ni ki noonu na fi mu nekk nii daal moom tafaatin daal yëglikaay bi di suñu lamb mooy wax nag dafa daal taxaw temm la def maanaam paren ngir fas yéene nag jàmmaarlu ak ki nga xam ne nii moom moo di Boy Niang numéro 2 yëg bi di sunu lamb xëy tey foo xam ne ni dañ fay dem muy Pikine goog nga xam la Boy Niang dëkk écrit ba nga moo fa nekk moom muy Pikine mbooloo soo bëggee dégg mu nekk ni ko waral daal yëg ñëw duggal ñu ci mu mel ne nag daal wàllum kiris boo xam ne nii daal bu soree sori la ci seen biir moom moo terrasse écrit ba nga xam ne ni écrit ba fi nekk nekk nii daal na mu taxawee moom dara dara baaxatu ci mu mel ni problème mu ay dirigeant wala boog ay njiit yoo xam ne daal ñoom ñoo ko war a doxal fi mu nekk nii est moo leen jàpp mu mel ni ki daal écrit ba nga xam ne nii daal moo nekk ca Pikine moom te ñu naan ko écrit Pikine mbooloo soo bëggee dégg dëgg moom a gis daal na wala ma nga xam ne la boog ca cadre écrit ba tamit xëy di wax ka nga xam ne ni moom moo di Abdoulaye Dembélé mel ni ki daal Pikine mbooloo moom dox na mu daan doxe moom daa mel ni defatu ko feneen foo xam ne nii moom doxatut wala boog lamb ji naratu fee dox muy Sénégal yëglikaay bi di sunu lamb xëy na tey andil ñu promoteur muy Fallou Ndiaye ma nga xam ne nag moom promoteur bu lamb la taxawal ay combat moom daal jàpp na ne moom daal mu nga xëy boog di avertir ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa réew parce que jàpp na ne lii ñu gis day su continuer Sénégal boo sàggane moom ji da koy ñàkk lamb ji daal boo sàgganee kon ca Gàmbi fa la jëm loolu yëglikaay bi di sunu lamb xëy tey séq ak moom waxtaan ca ka nga xam ne nii moom moo di Fallou Ndiaye ka mu seqal waxtaan wa nag moom moo di Abdoulaye Diagne di correspondant wu yëglikaay bi ca Kaolack Fallou daal la mu gis mooy làmb ji moom boo sàgganee génn ci réew mi dem Gàmbi la nara def mel ni ki ba tey bu nu continuer dem ca tuusi ya fa nga xam ne moo di ca Gàmbi moom am na koo xam ne moom teel na faa dem wane fa boppam muy jamaïcain yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw tey wax nu ko maanaam face à bu mag a mag la fa doon amal bërki démb ka nga xam ne nii moo di jam daal loola daal la def fa nga xam ne moo di Gàmbi doxoon ci diggante nga xam ne nii moo de France ak Leket Baara ak yeneen mbër yoo xam ne ñu nga fa booy balla bokk na ca ak building bébé xarañ ak ka nga xam ne moo di amitié mu mel ni ki daal jamaykee kon loolu la def nga xam ne moo di ca Gambie seenum combat mu ngi ko nar a tëgg bi ne na dimanche lay tombeel le 28 mars 2021 bi nga xam ne ca la ñu nekk fa nga xam ne moo di ca Banjul keneen koo xam ne nii moom partenariat ya nga xam ne nii mu nga ca woon mu nga continuer di ko doxal muy ka nga xam ne moo di bàmb mbub ak la nga xam ne mooy kuréel ga mu yore muy fils di wutal mbër ya la nga xam ne moo di métier wala di leen former mel ni ki nag am na partenariat ak waa ARTP yëglikaay baa xëy tey ñëw dinu ko wax mel ni ki kon fi mu nekk nii mbër ya nekkee ca région de Thiès ak Mbour wala boog ca Diourbel ak dëkk ya ko wër bu ñu tamit ñu préparé wu xam ne ñoom it daal léegi seen formation daal di commencé beneen mbër moo xam ne nii moom mu nga nekk fa nga xam ne moo di ca mbuur muy Ousmane Gandigal moom daal ak ñàkk bërëm la xëy tey di ko wax ak ni mu ñàkk a doxlee ci làmb ji waaye nee na fi mu nekk nii moom pare na ngir ngém bu dugg ci làmb ji bëre ñu ne ko boo paree koo fas yéene jàkkaar lool mu ne kenn ku dul ki nga ne moo di Brise de Mer wala Tafa Boy Bambara ci lekk sama avance ma jël ku ci ñëw itam kuñ ma ci jox sa avance tamit ma lekk ko moom loolu la xëy tey di ko wax ak ñàkk a doxlem ci làmb ji tamit jàpp na ne daal du question ñàkk mën a bëri wala ñàkk doole wala force ne na noonu de xanaa kay jàppale la desee am loolu mooy li nga xam ne moo ko téye loolu la xëy tey di ko wax ñëw na ca mbër ya nga xam ne ñoo nekk petite côte ba tamit jàpp na ne ci wàllu xam-xamu bëri ak dooleeg parek physique ak yu mel ni ki noonu moom ne na yemuñu ci sax ak waa dakaar maanaam duñu ci sax benn yemu ca moom Ousmane Gandigal tamit wax na na ne tamit tuuti kon rek mu dugg ci gaal yi maanaam mbëkk wuti fa nga xam ne nii moom moo di ca Espagne waaye na daal ay wax ak jàppal bàyyi moo ko ca mujj génne parce que xalaat na ne loola kon du nekk la nga xam ne moo di solution ba tey bu nu demee fa nga xam ne nii moom moo di ca Equivox moom kan fay fekk moo di Malick Thiandoum moom daal seq na fa waxtaan mu yaatoo yaatu ak waa Equivox ñëw na ca la nga xam ne moo ko jële groupe des médias ak la ko indi fa nga xam ne moo di E-Média ak la nga xam ne sax moo ko dugaloon RTS mel ni kon daal vidéo booba moom ku ko xool da nga topp parcours Malick Thiandoum fa mu commencé di wax ci micro ba tey fi mu toll ak la nga xam ne nii moom la ca jot a dund ci ay bànneex ak ay naqar yëglikaay ba wala boog seen ba fa la doon waxe wax jooja ca Equivox TV moom Malick Thiandoum waaye fa ñuy jeexal tey nag maanaam koo xam ne ni moom daa xëy di wanteer mbërëm muy Tafa Gueye jalgati làmb xëy andil ñu ko mel ni ki nag mbërëm ma daal la Tafa yorab rajoom di wër di seet koo xam ne dina ko joxal Gris Bordeaux combat ndax dina giri fi mu nekk ni moom jafe defatu ko Tafa nga yor rajo ba di wër solub kabam Gris yor sengoor topp ca ginnaawam ñu toppalante ñoom ñaar kon daa mel ni fi mu nekk nii ban promoteur mooy gëstu Gris Bordeaux jox ko combat. Babacar gannaaw ba ñu la nuyoo ñu ñëw ak ki nga xamante ni moo di sunu làmb ci xëttam bu njëkk mi ngi ñu ngi gis ni ki nga xamante ni moo di entraîneur en intense en boxu de Tafatine prêt à tout battre ki nga xamante ni moo di Boy Niang maanaam ay entraînement yu métti. Mhm. yu intense mhm. yu tara tara tara daal. Mhm. ak wàllu box ak xeex ak yooyu quoi. Mhm. wax loolu nag war na mën a nekk xel war na ko mën a nangu ah, parce que olof ak wax ku wal mburu tuddub dëkk. dëgg la yaa ngi dégg te moom moo lekk avance te olof dina tamit ku lekk avance te du pomme. Mhm. bu jëlee avance avance mbër bu ni Boy Niang. Mhm. jëm moom si combat defe naa ne ah moo yee di entraîné de moo yee di box moo yee di. def la la Babacar boobule combat est-ce que dina yomb. déedéet ñàkk a yomb tax <laughs> a yomb uh-huh. looloo waral tey lii muy def mu di ko def. ci entraînement yi nekk si physique bi mhm. nekk si boxe bi parce que lamb jooju lambi jànq la te Sénégal yépp a koy xaar te ñépp a ko bëggoon mhm. naa nag combat bu tolloon ku ci jëm moom liñ naan loolu liggéey du doy mais boo xam ne ci ñoom ñaar dafa am enjeu ci ñoom ñaar ñëpp ñëpp ñëpp parce que ku ci nekk rek doo ko bëgg a ñàkk parce que ku ko ñàkk dafa am lu muy wàññi ci yow mais ku ko gagné tamit dafa am ci beneen niveau boo xam ne dañ la fa gën a yóbbu dañ la fa gën a yokk waate tàkkusaanu tafaatin ak tàkkusaanu booñaa loolu beneen jamono la loolu kenn du ko lijjanti loolu kay xat la nar a def yàlla dañ ko fekkete tal ko ah, Babacar ñu ñëw ci écrit boobu nga xamante ni moo di Pikine mbooloo mhm. de dirigeant ak kooku nga xamante ni moo di Pikine mbooloo kat terrassé par ki nga xamante ni moo di une crise profonde maanaam crise bu doy waar waaw waaw maanaam daal eh, bu ma la déggee maanaam ay jafe-jafe jafe-jafe waaw parce que écrit la boo xam ne Euh, am na ay at yoo xam ne ni mu doon doxee par rapport ak at yi ni muy doxee du mhm. benn mhm. alors ah, nag su amee xëy na comme li yëglikaay bi gëstu wala yu mel noonu mhm. problème mu dirigeant wala ay problème mu euh, encadrement parce que yooyu souvent su amee yooyu moo koy faral di indi mais yaakaar naa Pikine Mbooloo du équipe bu ndaw te formé na ay mbër yu ne defe naa ne tey war nañu mën a xoolaat ñoom parce tamit sport sax moo tëddee noonu. Ah, des fois da dem ba ci kaw. a yokk ko. ko pour que seen écurie dellu si fu mu nekkoon ndax écurie la boo xam ne wax dëgg yàlla warul manqué ci làmb parce que daf si bokk daf si marqué empreinte am bu baax a a Abdou Babacar ba tey sunu làmbu daal di dikkat ñun ci promoteur bi nga xamante ni moo di Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye lance un avertissement Fallou Ndiaye mi ngi dànkaafu ñi nga xam ñi nga wàllu lit ak ak lu bëri yépp mi ngi leen dànkaasu le le risque risque de quitter le Sénégal pour dem fi nga xamante ni moo di Gambie. waaw waaw la li risque de quitter le Sénégal. pour dem Gambie de migrer nee na di di daal dina dem voyager. waaw waaw moom daal xam naa ne ci mën a dégg moom. Uh-huh. ah euh, ñu wax ci kàddu wolof mu leer. man man moo tax moo tax booy boo a wóor. parce que moom mooy dànka Fallou moom promoteur la Fallou Ndiaye mm-hmm. koy nuyu borom Ndiaye production. Mm-hmm. mu ngi dànkaafu maanaam day bañ ah, kat làmb ji taxu uti Gàmbi mhm. te daa mel ni fi mu nekk nii loolooy yoot mhm. parce li tax mooy ku ne gis na ni bërki démb jamaykee def na face à bu rëy ca Gàmbi mhm. yaa dégg te fa la fas yéene tëggee làmbam le 28 mars te itam am na yeneen promoteurs yoo xam ne xalaat nañ ne bu mbir doxul fii moom danañ sax kum pexe ku mel ni Fallou Ndiaye mu sax am na tournoi boo xam ne war na ko tëgg fa nga xam ne nii moom moo di ca dëkk boo xam ne du sori Gambie trop trop ci fan yi ñu jëm defe naa ne loolu nag bu amee kon defe naa tey dafay jot nag suñu autorités yi mhm. actuellement nag ñu jël nag mesure ferme yi nga xam ne moo war a am pour ñu xool lamb ji ñu def pour organiser ko Sénégal comme yeneen discipline yëpp ñu ngi dox mhm. mais pourquoi depuis boobu de affaire dafa yàgg yàgg mhm. na trop te saison baa ngi dem février léegi mu jeex mois bu gàtt la nga dugg ci avril non a jëm ci waaw ni bu promoteur yëpp ki tee Sénégal dem tëgg ji Gambie est-ce que lamb ju sooxe fii ci sunum réew ah waaw parce que déet dañoo am lu def ni promoteur bu sañoon xam nga buy tëgg la la neex mhm. waaye nag boo la naa la ko voilà ñu dem ci ki nga xamante moo di jamaïcain bi nga xamante ni démb organisé na li nga xamante moo di face à euh, fële euh, ci diwaanu Gambie waaw léegi Babacar Jamaïcain Jamaïcain promoteur la boo xamante ni moom quitté na Sénégal ma nga ca Gambia mm, waaw moom moom yàlla daa dogal sax moom moom genn wàllam Gambie la genn wàllam Sénégal moom miin na Gambie mm-hmm. parce dëkk boo xam ne fa mën nañ ne fa nga juddoo wala fa nga yaroo sa lépp presque mu nga fa mm-hmm. tëgg na fa defe naa ne bàyyi ma ñoon ak euh, xoyantaan kenn dootu ko fàtte kon moom terrain bu mu jëm moom Jamaïcain miin na ko bëri ki dem def na fa def na fa face bu am solo ñu koy ñaanal yàlla rek ah journée boobu nga xam ne mun la fa dëgmal war ko tëgg ci mois de mars mhm. yàlla na ko réussir ak jàmm mhm. parce que tamit xale la boo xam ne am na ambition te itam mu ngi jéem te ku mhm. jéem rek ku olof na ku yokkul yaa wàññi te mu ngi jéem pour yokk kon jamaykee ñu koy nuyu di nuyu waa jam production yëpp ak di nuyu ñëwut ci nga xamante ni moo di le sociétaire de l'écurie bi Grand Yoff mbooloo kooku nga xamante ni moo di Ousmane Gandigal mi ngi cité ñi nga xamante ñoom la bëgg ñu jox ko ko nee na pare na pour bëri ak ki nga xamante moo di Brise de Mer ak Tafa Boy Bambara waaw ay adversaire lañ de war nañu mën a bëre de ñaari ñooñu mu cité ñëpp daal ku ci ne war a mën a bëre mhm. parce tamit moom mbëri la boo xam ne Ousmane Gandigal ah kenn dootu ko laajte ci làmb ñaari ñi mu dëkk tamit muy Brise de Mer muy Tafa Boy Bambara Abacar nga yaakaar ni euh, xale yooyu jamono ji euh, Ousmane Gandigal mën na leen dara non ñoo ñoo Ousmane Gandigal ay génération lañu rek dafa hmm. booy bambara ay plus hmm. de mer bokk presque ay kii lañ rek lamb bool na leen de mën nañ bëre de waaw li nga xamante ni moo di association FILS et e des lutteurs de Thiès et de Mbour

fa nga xam moom mooy mbuur mhm. mu ngi waaj dem na fi Thiès di waaj Diourbel muy loo xam ne daal lu am am solo la mhm. pour que rek mbër yi am tamit loo xam ne dañ ko booleeg seen làmb a wóor rek mhm. waaw euh, euh, euh, maanaam faw nga am loo koy bool parce que lamb la dëgg la dëgg la Babacar yaakaar naa foofu la ndar képpee li nga xamante ni moo gën a fës ci sunu làmb Babacar tey dafa mel ni dangaa sol sa feature waaw waaw noir rouge. Babacar yow da ngaa bàyyi ba sa da bàyyi ba Saint-Valentin passé nga indi Saint-Valentin. waaw Saint-Valentin defe naa démb la woon xam nga bëri la woon démb ah. parce que démb laa ko defe naa. Ah. Mhm. dama ko fanaan. mais Babacar xam nga lii lu muy signifié. future ah, future. le futur. le futur. Babacar kon mën nañ jàpp ne làmb ji yow yaay nekk le futur. waaw maak samay morom rek insha allahu rabbi maak samay morom parce que bu dee Babacar kese du neex waaw Babacar xam nga damaa na mu man tàkkusaanu Bekaay Mbay waaw na mu tàkkusaanu euh, Malick Thiandoum Uh-huh. Babacar na mu tàkku saanu Modou Lo mu a jóg rek dem na mu tàkku saanu Eumeu Sène Babacar waaw loolu day si kattan suñu borom uh-huh. yàlla nañ yàlla may gudd fan ak wér ak tal uh-huh. fekk rek lépp dinañ ko A A ak fekkee ñuy ñaan rek ñu tal te fekkee amiin amiin ñu ngi ko doon màggal mm-hmm. ah bésu mbëggeel la man nag dama naan man moom à ah, toujours rek Saint-Valentin la ci. waaw parce que Babacar li mm, wax lu am solo. Euh, mbëggeel yaakaar naa bu fekkee dafa sincère. chaque jour ki nga nekkal yaakaar naa feet la ci yow. waaw man de amalu ko bis. amuloo toujours guddi bëccëg naaj tàng taw ngelaw toujours feet la ci sama diggante. barke yow ma xiyaam lakk ba. ma koy ñaanal jàmm muy teneen. amiin yàlla ko yàlla yàlla sunu borom dimbali na la ba métier bi nga nekk. Mm-hmm. soxoroo ci inaanoo ci. Mm-hmm. di ñaanal suñu DG di ko ñaanal jàmm yàlla na ko suñu borom mu gën a may kàttan boo xamante ni dina ànd ak ñun liggéey liggéey bu sell parce que Babacar mhm. nee la nit ki nga xamante ni euh, day def ci yow alalam mhm. buggul dara manqué ci yow mhm. yaakaar naa ni kooku lu mu la wax ci liggéey war nga ko mën a defal waaw ku bëgg a liggéey rek maanaam yàlla dafa dogal mu nekk ndaw bëgg a liggéey di sénégalais xam ne liggéey lu waaye am lu liggéey maanaam loo loo am rek te liggéey mayu la ko rek ëllëg mën nga ñàkk lool kon bi mu am moom kilifa gi mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko réussir barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, wax nga baat boo xam ne tamit euh, baatu soxor boobu dama naan soxor moom ki koy def dafa daa ah, maanaam iñaan a rek mhm. et puis borom amul xalaat mhm. parce defe naa ne lu ñëpp war a bokk da ngay fexe ñëpp bokk ci rek parce que ku nekk ak sa wërsëg ku nekk ak li yàlla na mu dëgg la dëgg la kon defe naa bu ñu ko jàppee noonu rek du jar ñuy kiyante quoi incha allah ñaan yàlla defal ñu yàlla na yàlla ci réew mi ak sa Babacar